Bandidé. de euh, dem Ousmane Sonko nga xam ne. Euh, wax nga ni que ci wàllum politique politique euh, Sénégal fu mu toll nii moom nga si wóolu gisoon nañ ñu amoon benn relation bu particulière non mais xam lan la relation bu particulière xam lan la Ousmane Sonko leen rek lay doxal. tey yow boo jugoon léegi dem ne ko projet Pastef bi <laughs> pour dimbali Sénégal ànd naa si mu ànd ak yow jaxasoo ak yow doxal ak yow boo leneen yëkkatee après di nga woor sa bopp yaay dem bàyyi ko fa. parce que li mu nekkoon du ci jub la preuve ku ñëw di nga dem ñëpp dégg nañ le protocole de Conakry c'est-à-dire sénégalais dañuy ragal wax wax ci quoi alors li mu mujjee def ci élection présidentielle yi passé ñëpp gis nañ ko ñëw ne day soutenir Sonko ba ñëpp jàpp ko mu jaar ci suuf dem rocceeku dem ko nag non c'est-à-dire non attends non xëy na du loolu waxu ko officiellement mais yëg nañ ko moom laa la wax sànq lu ma ne ba xam ne Modou Diop du croix toob la moom laa lay wax sànq dafa am yoo xam ne ñun dañ koy yëg dañ koy yëg ñun après Abdoulaye moo rocceeku ndànk dem Abdoulaye logiquement ci logique bu ñëwee bu jógee France ñëw élection présidentielle kan la war a àndal bu dee opposition la ak fi ñu tolloon ci élection mais dañuy waxante dëgg le protocole bu doon Idrissa Seck du ñu xam le protocole de kii de de Conakry la fa xew ñun yëg d' après euh, les propos de Idrissa Seck de kii de du moins euh, de euh, Cheikh Yérim Seck ñëw njàpp mais ku ñëw gis ni say jikko méngoo la suñu jikko di dem mais duñ dàq kenn man mu njëkk dama mais dama mais ci affaire yi na nga yegg foo xamante ñun ñëpp la dépassé kon nañ yaatal déglu ku ci bëgg soppeeku ñu soppi la ànd mhm. la am ñoo xam dañ naan ñoom peut-être couleur bi neexu leen virgule bi nañ ko neexul ñu naan tànk bi lang moo ma neexul moo tax ma dem parce que ku nekk yaa ngi am sa alibi booy teg mais li wóor mu wóor moom mooy man gëm naa ni kenn du ci am ay privilège parce que loolu moo sos parti seen parti boobu noonu. mais est-ce que yaakaaroon ne euh, alliance bi euh, nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñu nekk kàngami de l'opposition comme ni ñu ngi koy waxee moo am benn bataille surtout la bataille de Dakar yaakaaroo ni mu séparé ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall ak kii di Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que ñu mel ni yéen nga xam ne dañoo jàpp ni kii di Ousmane Sonko fu mu toll nii moo ëpp doole si opposition sénégalaise bi est que loolu du dem ba indi jeexi jaaxa ci la bataille de Dakar te ñëpp xam ne Dakar moom euh, kii di Khalifa Ababacar Sall moo ko moom. nañ dem ba ci kanam dina leer parce que yooyu moom du ma si wax parce que coalition am ñoo xam da nga ni frustré am ñoo xam da nga ni vexé ak yooyu. Mm-hmm. mais li wér bu wóor dëgg rek moo tax ñuy wax. Mm-hmm. xam nga ni fii opposition bi fi nekk. nekk ci bopp bi yàllaa ko jiital dox ko mu nekk ko xam nga te ay xeexu ati at la dañ ko ñafe ba agsi fii. Mm-hmm. te Sénégal moo tax ñu koy def nag waxuñu ko pour vanter ah. wax nañ ci dox ci xeex ci ñun ñëpp jeunesse ak kii nga xam ne yéen bi wax la lii nekku fi nekk ngeen fi ay at waxu leen li muy wax nekk ngeen fi ay at li ngeen doxal nii feeñul ci ñi muy jëfe moom moo agsi fii tey kooku nag bu agsi ba Sénégal nekk suñuy loxo nag dañuy ànd ñu téye ko ñun ñëpp ba pare di woo tout le monde man tey wallahi Aziz Ousmane Sonko bu nekkoon président Sénégal nekk fi naan day jàpp kee di tëj day dóor kee naan kon bàyyi ñii bàyyi leen man loolu laa gëm wallahi Aziz yàlla moo tax may wax man Sénégal moo tax ma wax nii man xam bëgg man ku liggéey ku liggéey Sénégal laa bëgg te nañ woo ñëpp ñu ñëw ñu ànd liggéey foofu lañ toll mais ci liggéey bi ñu nit bi ñu mu mel ñu di bu dul sàcc nekk ay président am nekk ak mhm. ñu des ba tey euh, si coalition mu mel ni comme coalition Mor ne la gis neen Bougane mhm. coup de gueule bi nga xam ne def na ko mu jël ay wax yu doy waax sax mhm. yëkkati ko si ñi nga xam ne ñoo nekk si euh, bile coalition mhm. mu mel ni comme coalition bi aussi euh, Khalifa Sall aba kii di ak ñeneen kàngami euh, bu ñu xoolee couleur beeg ak façon nu ñu doxalee seen ay instance de décision dañ ko jël def ko seen moomee li bopp noo jàngatee génn ki nga xam ne mooy Bougane waaw man maa ngi sax ñeneen génn Mm. xam nga lu tax mm. parce que au fait fi ñu toll la quoi si combat bi ba pare idéologie bi moo tar. Mm-hmm. c'est que fii undu du fi naan ñeex. ah bon waaw. kan mooy undu gi non waxuma kenn du undu de dama ne la maanaam fii undu du fi naan ñeex cest à waxin la. <laughs> dañ toll foo xamante ni instant yi affaire yi fermenté ne soit da ngay accepté ñëw ñu xeex. Mm-hmm. parce que yow nga dem xool loolu day boo àndee dañuy est libre. man contre naa ñi nekk di saaga nit di ko yàq lu nekk di ko wax ay dem pour lan il est libre de dire que man ànduma si. man seetaan naa Bougane Gueye Dany ñu invité ko euh, Faram Facce mais waa ji ko yow kan nga jàpp ni mooy candidat bi baax pour Sénégal mu ne ko man. ah daa gëm boppam. waaw ok dafa def bi ñuy euh, euh, def kii noonu ne ko mais yow kan nga xalaatee mooy président Sénégal mu ki baax pour Sénégal gis nga niveau de réflexion yi est-ce que gis baax a baax a baax léegi nag ñun diine moo ñu sant loolu pour ñu jël ku naan mën a ñu fal ko man diine sant ma loolu léegi nag bu waan ngay daanee nañ bàyyi gars nañ bàyyi jàmbur il est libre mu ne moom coalition bi dayu ko dafa bëgg nekk ci kanam wala bëgg ñu jël couleur am laa xëy ko lépp parce que loolu moo ko intéressé moom léegi ñu nga leen li leen intéressé nga xam dañuy ñëw ñoom patriotisme moo leen intéressé Sénégal mooy nekk ci kanam mooy primé ci kaw lépp ñu jóg ñoo ñu topp si combat bi nekk si te xaaral su ma ñeneen gën naa am na ñoo xam dañuy yoot rek pour xool lu ñu mën ñu gisee ni gars yi tëj dañuy génn donc ñeneen ñeneen mën nañ génn euh, mais mais mais Karim est-ce que euh, amu leen euh, benn voilà xaw ma sax moo bu ma mun a utiliser jàpp ne carrément que ku bokk ci coalition bi wala sa ku d'accord seen ay idée taux bi crédit de président Macky Sall wala baaxul mu mel ni comme opposition sénégalaise bi est-ce que du du gagné am ku mel ni comme Bougane Gueye Dany à ses mm-hmm. am ku mel ni comme kii di Thierno Bocoum parce que mm-hmm. Bokoum moom njëkkoon na génn di mhm. dénoncer. que euh, loolu lu mu jàppee ne carrément opposition de pression la. te est-ce que jotul ces grands yi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom ay grand leen mhm. ñu wàcc wàcc tuuti wàcc tuuti xam ne carrément euh, fu mu toll ni euh, baromètre élection yi passé fu mu toll ni avec les les événements ak tournure politique sénégalaise bi nu muy doxee fu mu toll ni les compteurs sont à zéro Karim ñu ñu soxla la la force de de de tout un chacun mhm. ak tamit ñuy déglu aussi nit ñi par rapport ak seen ay revendications mhm. wala seen ay critiques yu ñuy def par euh, si esprit de groupe bi aussi Karim moom laa expliqué gis man man contre naa sax ñuy dal si kaw benn nit bu ne moom dafa génn ci coalition bi. Mhm. Bougane est libre Sénégalais la am na droit ne moom li mu gis doy ko mu bàyyi dem mhm. nekk ca la ko doy mais man dama contre gars yi ni ñuy defee nit koo xam ne àndul ak ñu koy clash man gëwuma loolu. Mhm. chaque jour ma gisee ñuy attaqué ay journaliste man je suis pas d' bàyyi leen journaliste yi ñuy attaqué tegu ko fenn. mais ñoom de toute façon journaliste yu ñu attaqué kenn mënu leen très def waaw non non mais mu laa wax rek Sarim mais xam nga non Sarim mais neexul quand même ah, xam nga loolu encouragé wul journaliste c'est la vie xam nga encouragé wul journaliste journaliste tey pour man koo xamante ne mi ngi taxaw nekk équidistant nekk ci digg bi ah. di di déglu ñii di déglu kee di def di def ay xalaatam di poser question selon contexte yi mm. kooku boo ko jëlee bu ko personnifié am foo ko dëkkal da nga koy tooñ ñàkkul teral nag am na journaliste yoo xam ne tekki wuñ dara ay mbarit lañu euh, euh, non non xam naa bu ko déglu woon mais am non non léegi nag man dama ne léegi nag man dama ne ah coalition bi coalition bii nii c'est très simple lenn kese la xam nga lan la coalition bi ah? mhm. mooy loo xamante ni suba mën nañ xaar keneen ak keneen génn mhm. mën nañ xaar Khalifa Sall génn mhm. mën nañ xaar keneen ak keneen ak génn mën nañu xaar aussi Macky Sall rejoindre euh, coalition bi bu ñu xoolee mënul nekk c'est impossible ni ngay waxee nii mënul nekk <laughs> c'est impossible mënul nekk <laughs> mënul nekk xam nga keroog Cheikh Anta Diop bi ko Senghor woowee da ko woo pour jox ko poste ministre mu ne ko nga yoree réew pour man lii moo taaral Sénégal moo tax ma ñëw ma ka xeex ba di may wax ni léegi su ma bàyyee loolu ñëw nekk sa gouvernement bi nga xam ni nga wéréew bi ma d'accord ma si ko li ma dund nii li ma gëm nii boo ko toppee léegi-léegi man soxla sax may nekk ministre ma xeex bi mhm. ma toog lépp jébbalu ko arrêté xeex bi mhm. donc kon mënul nekk c'est Macky Sall mënul dafa yegg foo xamante ni mënutul nekk loolu au fait en réalité loolu sabotage la rek di ko wax <laughs> mais fi toll nii ci combat bi mon fi mu toll nii ci combat bi xam nga mhm. mooy ñu fexe ba góorgóorlu ba nga xamante ni ñu bañ a réeroo ci ay détails. tout à fait ñu xam ne objectif essentiel bi mooy. Uh-huh. patriotisme bi pour servir le Sénégal. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu jël égo bi teg ko fële. ñu jël Sénégal ñu teg suñu kanam yàlla jiital na benn njiit def na ko ba pare mooy Ousmane Sonko te yàlla def na mu yor ay jikko yoo xamante depuis gëj nañ ko gis ci ay Mamadou Dia ca Thomas Sankara Thomas ko dégg ca ca ca ca nu mu tudd Cheikh Anta Diop. xaaral ma ñëw non xaaral ma ñëw rek xaaral la wone <laughs> tout à fait mais ñu ngi kërti kërti say élection locale ay mhm. coalition mhm. mais euh, fu mu toll nii analyste politique yi wala sax ñoo xam ne dañoo xaw a jege ñi nga xam ne mooy pouvoir bi euh, ñi ngi wax ne élection locale du am ci janvier 2022 mhm. euh, ku ko mujjee wax moo nekk kii di Cheikh Yérim Seck si émission boobu lee mu def ak